بسم الله الرحمن الرحيم نيو يغال لي نيو سومبون تماي تونت لنت لنت ييغا خامتيني ني ني ماغال كام تي لنت لنت يوي لا نيو امي باي داغانا ليغا خامتيني مو ماي كام شيخ صالح الفوزان يوون تونت لنت اي تومبو تونت لنت لنت يوي نونو

lu ëpp ci nit ñi dañ leen a gis ñuy gàmm lu ëpp tamit ci réew yi jullit ñi dañ leen gis ñuy gàmm bokk na ci seen lënt-lënt yi mooy ñuy laye loolu Cheikh Saalih al-Fawzaan nee na wal jawaabu an dalika an naqul Saalih al na li ñuy tontu ci lënt-lënt boobu mooy ñu tontu leen ñu wax leen ne leen alxujjatu bi ma thabata an rasuli sallallahu alayhi wa sallam ليلاي دغ اك لي ني ورا لا يو تي الاسلام اك لي تيتال تي الاسلام موي لو صح تي يونت بي صلى الله عليه وسلم لو يونت بي صلى الله عليه وسلم داف ني داف كو لوم دافول دنيو كو داف شيخ من وثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن البدع عموما وهذا منها تنين يونت بي صلى الله عليه وسلم لي صح تي موم دي موي دانكاف اكا ارتو اكا تري tab bi ci li nga xamanteni mom moy bida bidaa bida ta bida bi digam ta moy fete juddu juddug bi sallallahu alayhi wasallam day tab ci bida yoy cheikh mune ne wa amalu nnaasi ida xaalafa dalil fa laysa bi hujja jëfi nit ñi su wuté ak li nga xamanteni mom moy tetali sharia ta moy dalil ta moy lay sharia ci alquran ak sunna neena bu boba lola kenn du ko layoo du nekk dalil du nekk layukaay boo xamante ni dañ koy laye kon lépp loo xamante ni nit ñi ña ngi koy def wala réew yëpp ña ngi koy def te saxul ci sharia yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ko du tax a nekk dalil du tax a nekk layukaay moo xam nu ñu mën di toll cheikh mu ne wa in kathuru moo xam seen lim nu mu mën di toll ci bëriwaay su ko ab dëkk yëpp doon def am réew yëpp di ko def du tax mu nekk sunna du tax mu nekk loo xam ne dañ ka war a def ci sharia cheikh bi daal di tettalloo wax yàlla ji ne wa in tuti akthara man fi l ardi yudilluka an sabilillah suratul anam laaya téeméer ak fukk ak juróom benn cheikh bi mu ne yàlla subhaanahu wa taala day wax na ci alquranul karim di ŋàññi ñi ñi nga xamante ne dañuy tettalloo ak bëriwaay c'est-à-dire lu ñu wax rek ñu ne lu ëpp ci nit ñi dañ koy def lu ëpp ci réew yi dañ koy def nangam nangam nangam nangam cheikh bi mu ne yàlla nee na ci alxuraan de wa in tuti akthara lu ëpp ci nit ñi day ci kaw suuf boo leen toppee yudilluuka an sabilillah dañ lay sànq réeral la li nga xamante ne mooy yoonu yàlla subhanahu wa taala te li muy tekki mooy ne chaque jour ñu ëpp ci nit ñi ci ak ndënk ak ak ak loo xamante ne nii lu sori yoonu yàlla ca la nekk kon mbir mi nekkul lu ëpp ci nit ñi ña ngi koy def wala lu ëpp ci réew yi ña ngi koy def mbir mi mi ngi nekk ci ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko mbir mi moo ngi ci ndax saxaabaam yu tedd ya defoon nañ ko mbir mi moo ngi ci ñu saxaaba yaroon ndax def nañ waaye kenn ca ñoom defuñu ko defu ko loolu ku ko mën di def ak réew yëpp tamit ginnaaw ñoom buñ ko defee wala nit ñëpp buñ ko defee du tax mu nekk aw lay wala mu nekk lu dagan شيخ مؤمن مع أنه لا يزال بحمد لله في كل عصر من ينكر هذه البدع ويبين بطلانها الشيخ مؤمن أكسنت يالا تامل الحمد لله ني جمال جوني يالا تاغن اي نيت اك اي بروم خم خم يو خامتيني ني نياغي داق اك ليرال اك داق بدا بيغا خامتيني موم بدا غام مي ماغال غود يونت جود يونت بي صلى الله عليه وسلم اك ليرال نين ne ak neen la nekkul loo xamanteni ni dëgg la nekkul loo xamanteni ak njub la cheikh mu ne fala xujjata bi amali man istamara ala ixyaiha baada ma tabayana lahu alxaq cheikh mu ne ki nga xamanteni ni nii dëgg leer na ci moom ñu leeral ko dëgg kooku day amatul lay ëllëg amatul lay ci continent di ko def amatul lay ci continent di gàmm ak a feete li nga xamante mooy guddik judd yonente bi salallahu alayhi wa sallam شيخ منى فممن أنكر الاحتفال بهذه المناسبة شيخ بمنى بوكونا تي برم خم خميغا خمنتيني ليرال ناي بندنا دق ليرال بداي غام تموي فيت غوتيك جود يونتبي صلى الله عليه وسلم بوكونا تي برم خم خم يوي شيخ الاسلام ابن تيميه شيخ الاسلام ابن تيميه يالا نكو يلا يرم te cheikhul islam taymiya mi ngi génn àdduna sept cent ci hijr ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy juróom juróom ñaar fukki at ak ñaar fukk ak juróom ñett ca gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa génn àdduna mu tolloog mille trois cent mu junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci weeru nasaraan nga xool jamono ci mu génn nga xamante ne li dox diggante mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy juróom-ñetti xarnu cheikhul islam ni tayim ya bokk na ci borom xam-xam yi bind leeral bidaay li nga xamante ne ni moom mooy gàmm ci téeréem bii di iqtidaau siraatul mustaqim naka noonu bokk na ci borom xam-xam yooyu al imam al shaatibi kon ci xam-xami maalikit yi kon ci ngiru imam malik kon borom xam-xam bu rëy nga xamante ne nii mi ngi génn àdduna année sept cent ci atum juróom ñaar téeméer juróom ñaar ak juróom ñeent fukk ci la génn àdduna tombeek mille trois atum junni ak ñetti témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ñett ci atum nasaraan ci la génn àdduna ci miladi cheikh l'islam islam ibnu taymiya mi ngi génn àdduna ci atum juróom ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett nga xool ne borom xam-xam yi ni ñoom ñëpp bind nañ di leeral bi gàmm kon kenn mënul wax naan réew nangam wala borom xam-xam yi réew nangam ñoom ñoo ko araamal wala ñoom ñoo bi daal waaye ñii bokk ci ngir yu nekk bokk na ci cheikh islam ibn taymiya bokkoon ci ngirug imam ahmed ibn hanbal al imam shatibi bokk ci ngirug al imam malik gis ngeen année yi ñu génn àdduna ñëpp bind nañ taalif di leeral bidaay li nga xamante ne moom mooy gàmm al imam bi soo demee ci téeréem bi al di kitaab al maa nga fay leeral lu jëm ca te mooy bidaay gàmm boroom xam-xam bii tamit bokk ci ngiruk imam malik di ibnul xaaj ci téeram bii di almadxal bokk na ci ña leeral ña leeral lii nga xam ne moom mooy bidaa bidaa yi nga xamante ne ni moom mooy bidaa yi gàmm te bokk na ci boroom xam-xam yooyu taaju diin bokk na ca borom xam-xam yooyu leeral li nga xamante ne moom mooy bidaay gàmm di borom xam-xam bi bokk ci ngirug imam malik di taajuddin ali ibnu omar allaxmi walla alluxmi taalif na ab taalif di dàq ak a leeral lii nga xamante ne moom mooy bidaay gàmm mi ngi génn àdduna ci atum juróom ñatt ak fanweer ak ñeent di yamook 1334 la génn àdduna nga mu nekkoon boroom xam-xam bu rëy ñu koy woowee diin Taajudiin Alfaakihaani taalif na ab téere bu rëy di jaleeral li nga xamante ne ni moom mooy bidaay gàmm naka noonu boo demee ci borom xam-xam bii nga xamante ne ma nga cosaanoo ca Inde ñu koy woowee Mohammed Bachir Asahsawaani al Hindi mu génn àdduna 1908 mu tollook atum junni ak juróom ñeenti téeméer ak juróom ñett ci atum nasaraan ci la génn àdduna leeral na tamit lii nga xamante ne moom mooy bidaay gàmmu ci téeram bi ñu koy woowee siyaanatul insaan naka noonu bokk na ci borom xam-xam yi leeral bidaay gàmmu di borom xam-xam bi di Mohamed Rachid Rida nekkoon borom xam-xam boo xamante ne ñu ngi nekkoon diggante Liban ak Égypte génn àdduna ci atum 1354 ci gàddaay yonent bi salaa sallam hijri di yemook 1935 ci atum nasaraan ci la génn àdduna Mohamed Rachid la bokk na tamit ci ñi leeral ak a taalif taalif na benn bataaxal di benn téere boo xamante ne nii daf koo jagleele leeral lii nga xamante ne nii moom mooy bidaay gàmm ñu feete ko guddi juddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ca borom xam-xam yooye tamit al imaam al allaama Muhammad ibn Ibrahim ali cheikh nekkoon jiite woon li nga xam ne mooy wàllu fatwa ca Arabie Saoudite nekk borom xam-xam bu mag nekk delluwaay tamit génn àdduna mille trois cent quatre di ci hijra ci gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di atum junni ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñeent yemoog mille neuf cent soixante ci atum nasaraani di junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ci atum nasaraan ci la génn àdduna mu nekkoon boroom xam-xam kon mufti nekkoon attekat nekk borom xam-xam bu rëy xamantene ni jàmbaari lislaam la cheikh mohamad ibn ibrahim ali cheikh taalif na ab taalif di leeral bidaay gàmmu ak a tontu ña koy daganal naka noonu bokk na ci borom xam-xam yi nga xamantene ni leeral nañu ci jamono ji lii di bidaay gàmmu al imam al allaama Cheikh Abdul Aziz ibnu Abdullahi ibnu Baaz muy gën a siiw ci Cheikh ibnu Baaz yal na ko yàlla yaram ak mboolem borom xam-xam yi nga xamante ne lim nañu leen Cheikh ibnu Baaz génn àdduna ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru tamxarit ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la Cheikh Ibn Baas génn àdduna mu tomboog mu tombeek 13 mai 1999 tombeek fukki fan ak ñett ci weeru mai ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci atum nasaraan ñoo ñëpp ay borom xam-xam lañ yoo xamante ne bokkuñu jamono bokkuñu tamit fu ñu dëkk tasaaroo ci réewi lislaam yi ñoo ñëpp leeraloon nañ seen i jamono ñenn ñi bind taalif li nga xamante ne moom mooy bidaay gàmm Cheikh Saalih Fawzan leeral Cheikh Fawzan nee na wa xayru haulaai mimman laa yazaaluuna yaktubuuna fi inkaari haadihi albidaa kullu sana fi safaxaati aljaraid Cheikh Saalih Fawzan nee na ak ñeneen ñu dul borom xam-xam yooyu ñoo xamante ne ni dañuñu ba ci suñu jëmm jamono yàlla tey di bind ak daq dàq lii nga xamante ne moom mooy bidaay gàmm te mooy feete woo guddik juddu yonent bi sallallahu alayhi wa ci at mu nekk borom xam-xam ñi ngi bind di leeral bidaa yooyu ci di ko bind ci ay livre ko bind tamit ci journaux di ko bind ci hebdomadaire yi génn majallaat suñu jamono ji nga xamante ne ñi ngi ci taxawal di ci def bidaa yooyu borom xam-xam ñi ngi bind di leeral bidaa yooyu kon loolu moom moo nekkoon tontu lënt lëntu ñaareel bi jëmale ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy daganal lii nga xamante ne ni moom mooy gàmm kon ñu yemadi fii jëm ci lënt lënt ñetteel bi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu